Euh, depuis bi ngeen dugg see Mbour ban am. waaw Mbour wax dëgg yàlla kontaan parce que dafa bokk ci raison yi nga xam ne maanaam par la force dañ ko war a gagné parce que candidat bi nga xam ne moom la moo jiite coalition bi ñu nekk euh, fii la dëkk mi ngi dëkk fii rek à vingt kilomètres sax matu ko defe naa ne njëga ñaaw mu ngi kanam ni foofu la dëkk mais fii la doon jànge mbur gi fii la jànge lycée ak yëpp donc buñ fekkee dañoo dafa nekk suñu candidat ni ñu war a gañee yeneen gox yi fii dafay gën a farataw pour ñu gañe ko loolu moo tax euh, ñu ñëw fi tey fekk si fi mettal euh, di ñaan waa Mbour yëpp ñu jàppale ñu gis nañ fi lu dal suñu xel vraiment parce que yaa ngi gisal sa bopp euh, depuis ñu dugg ci Euh, dëkk bi ak léegi man damaa defe ne sax nit ñi dañoo wóorut xanaa parce que même heure ndogu bi nii gis nga ko ñëpp dañoo préféré génn seen kër yi ndogoo ci mbedd mi pour rencontrer ñu loolu nag moom lu dal xel la daal. tey daa mel ni ab hyper euh, euh, kii di Abdou Karim Gueye rejoindre coalition Karim Gueye. ak man ak euh, ñi ma àndal ay gan lañ fi moo fi dëkk te booy dugg ci ab dëkk nag dangay jaar ci bunt bi bunt fii metre Tall la ak ñoom docteur Diayité ñoom Lamine Niass ñooñu la ñuy cordonnel ñu lañu fii ngeen ñu fekk nii ngeen di jaar loolu moo tax bi ñëwee rek ñu topp ci ginnaaw daal mbedd moom wax ngeen jaar fa ñu jaar fa fu mbax wax ñu taxaw fa ñu taxaw loolu la Abdou Karim Gueye tamit xam naa ne yëgoowu ñoon sax bu ñuy ñëw mais xam naa li ko yëkkati moom ma yëkkati muy ñëw def campagne euh, pour mën a soññ nit ñi fàttali nit ñi euh, séddale bulletin yi pour ñu xàmmee ko Abdou Karim nag bu ñëwee ci coalition bi mën nañoo wax ne lu am solo la parce que dafa am nit ñoo xam ne même bu dul mbooloo mu bëri moo leen mën a waxal walla sax leneen waaye seen jëmmu rek lu ñu teew dañuy fekk ay millions yu millions sénégalais yoo xam danañ leen ñemeloo loolu parce que Abdou Karim euh, ku ko xam-xam ne mënul ñàkk ne mënul nekk ci ay caaxaan dal te digganteem ak Ousmane Sonko mi ngi bëgg a yàgg te bu fekkoon Sonko nit kuy sensé la wala nit kuy wor defe naa seen diggante am na lu yàqu na bu yàgg a yàgg kon donc comme ñi nga ànd ba léegi rek yaakaar naa ne loolu rek doy na sëkk ci nekk Sonko maa woon 2016 2017 moo nekkaat nii ba tey malgré que li fi jaar lépp. mobilisation bi da ngeen daa perte Mbour cette fois a bëgg a jël euh, baatu nag xam nga commune bi yëpp dañ ko daan gagné mais euh, dafa am ay dëkk yu nekk fii ci dëkk bi ci ci quartier yoo xam ne dañ koy perte bu xawee bari nag boo ko boo bu ñëwee fekk si résultat commune bi buñ la lay raw du bari nag mais dañ lay raw loolu nag Ousmane Sonko xamoon na ko ba def fi nemmi ko tour itam jàpp naa ne élection yi moom benn candidat moo am. muy président Bassirou Diomaye fay jàpp naa ne mbuur raafal moo fi am comme fi ñu jot a jaar fépp ñoo gis nañ ne raafal dana fi am muy élection yoo xam ne résultat yi bu génne dana dana xoromu torop parce que askan wi moo gis ñoom pare nañ ñun leader yi kay pare pareegul waaye ñoom moom pare nañ bu yàgg parce que au lieu ñoo yaa leen campagne mais ñoom ñoo campagne sax waaw. ñu ñoo xoon ñu la fois passée Ousmane Sonko am nañ yaakaar ne suba dina ànd ak ñun campagne tey ñu koy gis euh, le journaliste Madiambal mu bind ne le président war na promulguer la loi d'amnistie ni ëllëg wala dina ëllëg mën nañ jox dañ loolu rek naam waaw euh, loolu am na parce que boo xoolee démb la dalay jeex pour maanaam recours yooyu euh, defe naa ne bëgguma ci wax waaye jàpp naa ne daal incha allahu taala ay heures yu néew dinañ gisante ak danañ gis Ousmane Sonko parce que même bu dul ay information sax yu ñuy jël mais ni loi bi tëddee rek maanaam mënatul toog ci kaso bi parce que amatul lu ko fa mën a téye waaw loolu moom euh, ñun ñëpp ko bokk xam jàpp naa ne ko xam dara ci droit rek xam nga ne maanaam yaakaar naa Sonko mi ngi heure am yu mujj ci biir kaso bi boo nekkee ci xare ñi ngay ko sekkal ñu xaw ne ci ay xat-xat parce que seen jàpp mooy Benno Bokk Yaakaar xaw na am ab réeroo bu am ndax loolu dina leen yokk courage yéen tamit. waa waa ñoom dañoo panike rek panique la rek li ñuy wax noonu yëpp du dara gis nga bi ñuy tànn Amadou Ba ñoo ko tayoon tànn ko dofuñu woon kenn sexalu leen lem dañ ko tànnee avec la yu rëy parce que boobu jàpp nañu Ousmane Sonko def ko ci prison bi jàpp ne léegi jeex na dañuy gagné. dañuy dem élection ndekete yoote maanaam patriotes yi ak sénégalais yi ciment lañ benn yoon lañuy lañuy lañuy la ñuy tooy te ñoom Macky Sall boo ko joxoon kaamin mu waatala na Sonko du bokk donc ñoom jàppoon nañ ne élection yoo xam ne Sonko bokkul bu bu jomaa bu ñu amee Benno Bokk Yaakaar bu amee candidat rek jeex na donc loolu la taxoon ñu am confiance mais bi ñu demee li nekkoon ci Sonko Sonko jël ko yekk ko ci jomaay ñu gis ne loolu jàpp Sonko bi amul sens ci lañ paniqué rek tàmbali naa non léegi dañuy euh, jote fii jote faa dañoo leer ne Amadou Ba du gañee loolu da leen leer Amadou Ba du gagné loolu ñoom ñoo la ko gën a xam donc xam nañ ne du gagné léegi nag defet bi rek moom la ñuy consommé nii mais Macky Sall ak yëpp bu Amadou Ba naroon a gagné amul kenn ko am fitu opposé wu ko donc loolu donc la panique la rek ñoom ñoo tànnoon Amadou Ba te biñ koy tànn raison yi ñu ko tànne woon ñoom dañoo xamul politique li si des mooy dañoo xamul patriote yi xamuñu Sonko ñoom ko jàpp ne nit bu yàqee ki nga nopp day tax nga nopp ko xam nga ne xamuñu Sénégal hmm? ku la fekk nga nopp nit mu ne la mu ne la doo ko fi noppi taxul nga nopp ko waaw léegi nag ñoom dañoo jàppoon ne patriotes yi nopp giñ bëgg giñ bëgg Sonko suñ leen ko xañee rek suñ leen ko xañee rek léegi ñoom dañ leen di bëgg defe naa ne loolu erreur la loolu nag lañ def ñun ñu décider continuer suñ liggéey bañ dem ba paniqué di xuloo seen biir mais loolu lépp teewul premier tour lañ leen di gagné ñu xuloo ñu juboo ñoo ci yem voilà parce que xam nga ne panique mënta weesu dem jàppi élection ba date bi ñeeg si nga ne da nga koy fomm amoo loo koy fommee du dul bi nga yaakaar nga ne gerkat la donc kooku boo paree ban sénégalais moo ñàkk ful ban sénégalais moo ñàkk fulla ba koy wateel loolu yëpp mi ngi ci. lan lañ mën a xaar après ci bu ñu def waaw loolu nag si loxo méttal la nekk ñun ñu ngi ci ginnaaw méttal euh, di ko dégloo fu mu ñu wax jaar leen rek ñu jaar fa tey damaa socc sax ba sonn. mais ñu ngi ci ginnaawam heure buñ paree rek ci man ma tourné delluwaat sama kër waaw Euh, euh, voilà euh, ba tey rek ñu ñu xool Nara bu ko defee rek. pareegul voilà waaw alors ñu jëm a dem jël maître Tall euh, moom aussi tamit euh, nga xam te ne moom moo fi woo euh, ñële voilà baal baal ma dugg baal baal ma bëre si nii wala ci ne bëgg bëre bañ bëre les populations sont averties déterminées et ils ont pris leur responsabilité effectivement de tourner cette page sombre pour aller ouvrir une nouvelle page au grand bonheur des populations sénégalaises. mais léegi nii biñ taxawee nee nañ romb armeer yi fay yi ba armeer ba armeer yi jeex ñu doo ko taal benn maire dama ne maire Talla mu def ak télé boo xam ne nii sama xel dafa dem ci Ousmane Sonko heure bu waxtu diine jotee day bàyyi li mu ne a def fan yëpp heure buy campagne suñu rombee jumaa ji nodd wala jàkk ji nodd day taxaw parce que yàlla waa mbuur ñëw ko seede ah, mooy dëgg sunu kaddu lu mu foor foor kaddu yàlla moo gën a foor te foor romb ñu ne allahu akbar war nga ko wormal nga taxaw loolu moo tax Cheikh Baara ak Mara Niass ak euh, Abdou Karim Gueye xurum xaax à sept minutes de la rupture du jeu ñoo attiré sama attention ne ma euh, bu ñu taxawee bu ñu demee si jàkk ji na ñëpp fay rajo yi ñu taxaw dog julli doog a jugaat continuer sunu sunu liggéey loolu nag day wane ni en réalité yi ay vrai doom ay vrai jaamu yàlla nañ patriotes yi ñii ay jullit nañ même ñi nekk si jàngu bi ay vrai jaamu yàlla nañ man am naa yaakaar ni Sénégal gi ñu nar a bind au soir du 24 mars 2024 boobu Sénégal dina wuute ak Sénégal gi ñu xamoon ci jaay doole ci naxasal droit ci sàcc alalu réew mi. ci dëkkee di wax nit ñi lu dul dëgg ak dëkkee nit ñi di leen gaañ di leen dóor Ousmane Sonko moo frère fa nga nekk am nañ yaakaar ni heure yi di ñëw di nga fa génn yow ak Bassirou Diomaye Faye ak ñeneen ak ñeneen ñi si topp am nañ yaakaar ni boo génnee incha allah te noonu lay demee di nga ànd ak ñun dugg def la tour du Sénégal moo frère Ousmane Sonko jàppal ni la nga waroon a def yëpp sénégalais yi defal nañ la ko foofu tëddoon sax sa kër sénégalais yi dinañ génn baal sa campagne. mon frère Bassirou Diomaye Faye incha allahu yow rek yaay campagne fii même.